directeur général ne ma boo yeggee ci sëriñ bi waxtaanal ak mom ndax xawna na dajé won nañ ci Touba waxtaan wax waxtaanu am solo ci lolu tay ñu ñëwaat fi pour dëggal taxawayam ci walu wowo nga xamni lu am solo parce que ku ne xam ni nim koy waxé ça suné mom le directeur général que tourisme moy le second secteur pourvoyeur de richesse ou de devise au Sénégal ginnaw bu pêche jallé kon lolu warna tax ñu ubbi yenen patch yu am solo parce que y a le tourisme médical ku ne xam ni yagul dara ci sali dem na fa taxawal fa lu melni centre ophtalmologique ku ne xam ni tourisme benen bi nga xam moy touche balnéaire partenariat mi ngi ciy liggéey lu am solo ak yi mu indi sal yëpp pour ñu doxal tourisme boobu waaye nag mu teg ci tourisme religieux tourisme religieux nag ku ko wax wax dëkk yu sell yi tey mooy sunu première sortie ci ndigalam ñëw fii ci Porokhane ci dëkku Serigne Touba bi ci dëkku Maam Jaara Buso bi kon loolu nag ah dañ ciy woo ñëpp rek di ci soxla ñaan ci Serigne bi ndax tey bu nee tourisme religieux ku ñëw Porokhane ñëw nga fi nga war a ñëw egsi nga fi nga war a egsi ndax itam il faut que nit ñi am ay réceptifs touristiques alal yoo xam dina permettre ñi nga xam ni ñooy ñëw ci dëkk bi ñu am fu nu dal ak tout les communautés religieuses yi ànd ak moom def naa loolu jaadu na bu ko président dénkee Souleymane ëlbatiku ñun nomee ñu ànd ak délégation bi toll nii directeur yi mu seqal yëpp liggéey bi ci sab ko ñëw taxawal ko fii jaadu na teew fi ngir magnifier loolu xalif bi ne ko daal vraiment ko mi ngi bëgg a ànd ak moom ci liggéey bu am sol bo solo boobu liggéeyal ko diine ji liggéeyal ko Touba liggéeyal ko borom Touba ku wax Sénégal xam ni ay nitu diine yi am solo ñoo fi nekk te xam ni am na ay xew xuy diine yu am solo yu am ci këru diine yi rawatina dëkk yooyu nga wax kon day jaadu ni ma ko waxee sànq samay kaddu à l'entame de mes propos que ñu defal nit ñi ci gox yooyu fu mel ni Kaolack mais dina bàyyi am nay pèlerins yu jógee Nigéria yu jógee fu ne di ñëw foofu di def seen pèlerinage waaye fu mel ni yeneen dëkk yi comme Tivaouane comme Yoff comme Dakar ñu war faa def ak ndigalu président la ñu def fa ay réceptif ni ma ko waxee touristique yoo xam ni këru gan mën nañu ko tudde noonu yu am solo yoo xam dina tax képp koo xam ne bëgg ngaa xam maam jaara boo ñëwee poroxaan di nga ko fekk benn musée bu ndaw boo xam dana la xamal jëmm jooju mooy kan